والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم صدق الله العظيم والذين قاعين نحن في أموالهم نكنا جسيم ألمي حق أق حق تر معلوم بن خم للسائل نيل ويلات نيل أجلات wal mahrum ak kañu xañ ka mahrum ka xañ aaye euh, bu jiitu bi mooy ne gisoon nañ ci suñ jotaay weesu euh, bi tàmbali woon ci aaye boobu ba waxoon nañ ci li nga xamante ne moom mooy wàllu alal bi gisoon nañ teqantal yi nga xamante ne moom la boroom xam yi rahmatullah alayhim Euh, teqale alal maanaam ginnaaw bi ñu gisee lan lay tekki ci ñoom wala lan lay tekki ci luxa maanaam ci làkk arab yi waaye maanaam fan la baat bi jóge mooy étymologie bi maanaam lan mooy cosaanoo baat bi ak lan lay tekki euh, ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñuy wax baatu lan lay tekki gisoon nañ tamit teqale bi nga xamante ne moom lañ xaajale euh, alal ci bu ñu xaramee ay wàll yu wuute ñu bàyyee xel ay wàll yu wuute am na alal noo xam te ne noonu lañ ko teqale euh, ci suñ jotaay bi weesu am na ci ñaari yoo xam te ne spécialement gisoon nañ leen mooy teqale gi nga xam ne moom lañ teqale alal ci yi nga xamante ne euh, asnaafu rubawiyya la ay xeetu euh, alal la yoo xamante ne riba mën na ci yi nga xamante ne riba moom mënu ci dugg waaye tamit gisoon nañ ci biir alal yooyu ba tey yi nga xamante ne azaka mën naa am ci azaka azaka daf ci dañ ko ci génne ak yi nga xamante ne ñoom ñooy yi yoo xamante ne ñoom kenn du ci génne azaka euh, léegi mu des benn teqantal boo xam ne amaan na boobu sax moo ëpp solo ci teqantal yi mooy lu xaraam ak lu alal ji xaraam Euh, moom mooy li gën a néew alal ji dagan moo gën bari euh, ngir ne alal mëneef na ko am ngir dañ koo doon mu dagan mëneef na ko am ngir ne dañ la koo may mu dagan mëneef na koo am ngir li nga xam ne moom mooy al ijaara maanaam da liggéeyal kenn dara mu fay la ko mu dagan mën na jóge ci li ñu tuddee az-ziraa maanaam mooy bay euh, wala sax boog nga sàmm. bu jur alal dagat wala lu ñu tuddee sanaa maanaam mooy danga am loo xam ne da nga liggéey ak sa loxo voilà sa loxo nga liggéey dara mooy lu ñu tuddee artisan maanaam da nga def benn interaction artisan maanaam eh, benn benn maanaam liggéey boo xamante ne loxo la moo koy liggéey mooy comme bi ñu artisan eh, eh, nga am ci wala kom tabax yi nga tabax dara et tëgg euh, voilà plomberie yi ngi def voilà et cetera ngay jaay voilà nga nekk boucher wala poissonnier et cetera maanaam sa liggéey daal moom moo la jox alal ji voilà kon yii yëpp ay mbir la yoo xamante ne nu ne mën nañ cee amee alal mu am tamit lu ñu tuddee albayo mooy njaay jaay eh, nga daal ci am alal yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith sayyidina Rifaa'a ibn Raafi' radiyallahu ta'ala biñ ko laajtee ayyul kasbi afdal mu ne amalu rajuli bi yadihi wa kullu bay'in mabrur mooy ñu ko laaj ko jëf yëpp lan moo ci gën maanaam liggéey ban moo ci gën mu nit ki li muy liggéey ak loxo ak bépp njaay moo xamante ne bu baax la eh, kon njaay dafa am bu baax am bu baaxul mais dinañ ñëw tamit incha allah mais loolu xam naa dañ koy bàyyi ba ci jàngat euh, alal bu dagan maanaam alal maanaam euh, ci biir liggéey yi maanaam nan la ñuy def ba jot alal euh, yan mooy yi nga xam ne moo ci gën ak wuute yi ci borom xam wuute alaykum mu am tamit fii benn mbir moo xamante ne kon maanaam yii dagan nañ yi xaraam nag ci alal mooy xeetu njaay jënd gu baaxul wala xeetu. Euh, naxaate euh, euh, xeetu naxaate ak xeetu ger ak lépp loo xamante ne dañ koy tere ci wàllu njaay te ngir ne soit xarar da ci dugg wala riba da ci dugg wala naxaate da ci dugg xarar gisoon nañ ko mooy incertitude maanaam mooy loo xam ne dafa desee leer dafa desee wóor da ci dugg walla boog riba di ci dugg yi ñoom ñoy yi nga xamantene ñoom ñoy di xaram manam kon wul yi dagan ñoom ñoo ëpp façon bu ne mën na mënef na ci amé alal mu dagan légui mu am tamit fi borom subhanahu wa taala comme bimu ne wallazina gaa yi nga xamne hum wallazina gaa yi nga xamne fi am walihim nek nek seen alal ñu gis ne euh alal gogou daf leen ko askanawé ngir ne am na alal maanaam borom subhaanahu wa baatu alal ci alquran daf koo indi juróom-ñett fukki yoon ak juróom-benn mooy 86 mais léeg-léeg mu ñëw ci anam goo xamante ne daf naan maal maanaam alal al comme fu mu naan al maalu wal banuuna zinatul hayaati dunya euh, ak ana aksaru minka maalan wa a'zu nafara euh, ak yu mel noonu maanaam yooyu yëpp baatu maal lay jëfandikoo. waaye la nag mu ñëw jëfandikoo euh, am waal maanaam daal koy jëfandikoo ci pluriel mooy alal yi voilà comme wala tu sufaha ak comme fii wa fii am waalihim euh, kon dañu gis ne ci ñaari anam yooyu yëpp borom subhaanahu wa ci indi baat boobu euh, askanale nag bi nga xamante ne moom lay askanale mooy him loolu askanale. la ngir fàgguteef gi euh, loolu moom moo tax ñu waxtaane li nga xamante ne moom mooy xeetu fàgguteef yi nan la ñuy fàggoo alal te dinañ ñëw incha allahu taala ci njàngat yi euh, ci gën ci dugg mais wax nañ ne fàggoo alal mooy euh, ne borom subhanahu wa ta'ala daf lay askanalee alal gi maanaam ginnaaw bi nga xam ne moom moo la ko jox waaye su loolu mos alal bi alalu yàlla la comme ni ko borom subhanahu wa ta'ala waxe wa aatuhum wa min maalillahi allati min maalillahi allati ataakum jox leen leen ci alalu yàlla ji nga xam ne moom la leen jox min maalillahi allati ataakum ni alal alalu yàlla la waaye nag borom subhaanahu ci teranga gi ko teral maanaam ko daf koy moomalee alal gi comme ni nga xamante ne noonu lay waxee eh, ci aay yu budul benn du ñaar mu naan mimmaa razaqnaahum maanaam ci liñ leen kon nga gis ne googu alal gi la bokk mu am euh, léegi borom subhaanahu wa ta'ala ginnaaw seen alal fii amwaalihim daf ne haqqun ma'lum haqqun euh, baatu xaq ñëw na ci alquran lu bare bare euh, bare ñëw na ci ñaar fukki yoon ñaar téeméer bi yoon ak juróom-ñett fukk ak ñett wala bu la neexee nga ni ak ñeent maanaam ñaar fukk ak juróom-ñett ñaar téeméer bokk ak juróom-ñett fukk ak ñeent muy 284 su la neexee nga ni 283 li tax 284 parce que dañ ciy boole fi mu fi yent yàlla Musa alayhi salaam doon wax naan haqiqun allah aqula ala allah illa al mooy haqiqun nga xam ne ci même radical bi la génnee loolu moom buñ ko ci boole day nekk 284 kon haqiqun ala aqula ala allah aqula ala allah illa al haqq mooy ne yey na moos. war na ma moos ne te lu sikk nekku ci ne lii mooy li am mooy ne duma waxal yàlla lu dul dëgg euh, léegi bu ñu xoolee baatu xaq day ñëw kon ci yeneen forme yu ñëw yëpp dangay gis mu ñëw soit ci baat bi ci boppam al xaq wala mu ñëw ci euh, fi'l bi maanaam mu ñëw ci masdar bi ci substantif bi baat bi moo non moo bi non bi non bi ismu bi léeg mu ñëw

wallahu ahaqu an taxaw yàlla moo gën ah, mu gis ahaqu moo gën a yey an ci ngeen ragal ko kon dangay ne foofu day ñëw ak li xeqal xaqa ngir mu dëggal ngir mu feeñal li nga xamante ne moom mooy diini ji dëgg maanaam mooy li yu xeqal xaqa mu ñëw léeg-léeg ci euh, kon alif laam gi ñëw ci mooy comme li wax léegi comme inna arsalnaaka bil xaqi yónni nañ la naka ñun yàlla dañ laa yónni bil xaqi ci dëgg waaye léeg-léeg mu ñëw ci al xaq maanaam ci xaqun boo xamante ne eh, tamit eh, kii rek lay doon eh, maanaam dañ koy dañ koy dañ koy idaafa comme xaqa qadrihi xaqa tuqaatihi xaqa voilà xaqa tilaawatihi voilà xaqul yaqin gis dañ koy idaafa maanaam dañ koy askanale daal léeg-léeg mu ñëw comme fii ni manam nga xamne askane la wuñ ko dara haqqun rek la fi amwalihim haqqun ma'lum wala euh amna ci benen ay wa fii amwaalihim xaqun lis sail wal mahrum alors que fi ne dafa wa fii amwaalihim xaqun ma'lum kon yi yëpp day tegtale fi fi def na fi fii amwaalihim xaqun ma'lum fële mu ne wa fii amwaalihim xaqun lis sail wal mahrum ci sortu Zariyat kon dañu gis. ne euh, ñëw na ci forme yooyu yëpp baatu xaq xaq nag cosaanam mooy loo xamante ne dafa sax loo xamante ne dafa dëppook li xew li nga xamante ne euh, daf mooy day amal ci dëgg ak xereñ maanaam loo xam ne day amal ci xereñte ak dëgg ak loo xamante ne dafa sax ci jëmmi boppam nekk loo xamante ne dara du toxal loolu mooy xaq ci maanaa boobu nag moo tax allah tur yàlla allah ci boppam mooy huwal xaq moom ci bopp mooy al xaq dégg nga euh, moom moom mooy nga xamante ne nekkam amul fu mu tàmbalee te amul fu mu te nekkam moo sax te moo yey leneen lu dul nekkam moom borom subhaanahu wa ak amam dafa nekk loo xamante ne euh, mën na ne comme mën na bañ a ne te day aju rek ci coobaree borom subhaanahu wa Euh, loolu moom mooy loolu xàq day ñëw ci maanaam boobu mais xàq day ñëw ci li amal ba pare mu tegu ci xereñ xereñteef mu tegu ci loo xam xamante ne ak xereñ la tamit euh, muy mu dëppoo ak li jaadu loolu euh, xàq day ñëw ci loolu te lu bari bari ci baatu xàq léeg-léeg day ñëw ci maanaa yooyu te mooy li nga xam ne borom subhaanahu wa koo amal te mu amal ko ci coobare boppam ba pare lépp ànd ak xereñ Euh, day ñëw kon ci maanaa yu wuute nag ci alquran maanaam bu ñu xoolee maanaa yu ñu fi jot a wax nii yooyu yëpp ci lay xàq di wërwërloo waaye bu ñëwee ci alquran dafa am ay maanaa yu baree baree bari yu mën a am du xàq boo leen gis ci alquran rek maanaam benn maanaa kese la am déedéet muy ñu naan dëgg dëgg dëgg naam dëgg la mais dëgg kooku dafa am maanaa bu laqatu ci ginnaaw dëgg googu euh, ma alquran. di yàlla ci boppam allah comme ginnaaw borom subhaanahu wa ta'ala naan bal bal kazzabu bil haqqi wa inna aktharahum lil haqqi kaarihuuna walaw ittaba'a al haqqu ahwaa'ahum la la fasadatis samaawaatu wal ardu wa man euh, muy d'ailleurs foofu baatu xaq gis nga am na ñetti maana ñetti maanaam yoo xamante ne ñaari yu mujj yi dañoo jegewantoo déglu bal kazzabu bil haqqi manam euh ñom dañu weddi alquran fofu haq alquran lay tek lam ah wa kazzabu bil haqq wa aktharuhum lil haqq kaa wa inna aktharuhum lil xaq kaarihun te upp ci ñom nit ñi manam yefiri bil haqq manam ci aaya yàlla yi yu nekk ci alquran aaya yàlla yi kaarihun dañ ko sëg walaw bu fekkonte ne nag ittabaa day top alhaq yàlla ñi dëkk ahwaahum seeni bànneex la fasadati samawati wal ard kon asamaan sa suuf yàqu wa man na ak li nekk seen biir kon da foofu ñetti maanaa yooyu yëpp ñëw nañ te benn bokkut sa morom dëgg-dëgg ak li muy firi euh, kon alquran day ñëw di tekki euh, xaq ko euh, comme fi mu naan bal kazzabu bil haqqi lamma jaa'ahum ban li fi nek moy ne kazzabu ñoom de dañu weddi bil haqqi ci alquran lamma jaahum bi mu leen euh kon mom moy kon bal kazzabu bil haqqi haqqu bu ñek bok fofu kon ci aya boobu nek sootu mu loolu tek mu ne wa inna aktharahum lil haqqi karihun li upp ci ñoom nak deug muy aya alquran yi ñoom kaarihuuna dañ koy dañ koy bañ te loolu moy euh li wone ni fofu aya alquran lay lay tekki mom moy ay bi nek ci suuratul ana bi borom subhanahu wa ta'ala di wax nan wa laqad na'lamu annahum wa laqad na'lamu annahu yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun ñun de xam nañ ne mais ñoom ñun xam nañ ne ñoom la yahzunuka alladhi yaqulun innaka la yahzunuka alladhi yaqulun maanaam xam nañ ne yow yent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam ñoom li ñuy wax dina la weddi euh, loolu daf lay tiis maanaam daf lay tiis la yahzunuka alladhi yaqulun mu ne fa innahum la yukazzibuna li xew nag dëgg-dëgg mooy ne ñoom weddi wuñ la lu xew ba mu ne walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun waaye daf fekk ne tooñkat yi ñoom aaya yàlla yi ci seen bopp la ñuy dingat wedd la bañ euh, kon loolu mooy kii léegi nag mu ne wala wala wi taba al xaqu ahwaahum ay bu yàlla kooku nag mooy al xaq mooy yàlla yàlla bu toppoon seeni bànneex law ittaba'a al-haqqu ahwaa'ahum kon la fasadati samaawaatu wal ardu man fiihinna kon asamaan si suuf si ak li ci diggante bi day yàqu kon gis nañ fi déjà ñetti maanaa ci xaqu yàlla alquran ak aaya yi euh, xaq day ñëw di tekki euh, al islam mooy l'islam ci jëmmi boppam moy comme fi borom subhanahu wa ta'ala di waxe nan euh huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa diinil haqq li yuzhirahu ala ad-din kulli mom huwa alladhi mom borom subhanahu wa ta'ala mooy nga xamante ne arsala mo yabal rasulahu ak ndawam bil huda mu indi njuk wa diinil haqq te njuk googu moy dine moy dundin wi nga xamne moy al haqq moy l'islam moy dundinu l'islam dégg nga kon baat boo ak xaq islam lay tekki yuzhiru bu ko defee mu feeñal ko ala diini ci kaw dundi ni kulli gi yëpp mu ne walaw karihal mujrimuna wala bokk walaw karihal kafiru donte way jomb ñaa bañ nañ ko sip nañ ko wala bokk feneen donte way eh, ñi ñi ñi ñi yéefir yi eh, bañ nañ ko am na beneen eh, kon loolu day tekki comme par exemple fi mu naan luy xaqal xaq wa yubtilul baatila walaw karihal mujrimun maanaam li yuhiqqal haqqa euh, ngir yàlla feeñal lay tekk gis nga li yuhiqqa ngir feeñal gis nga aaya bi ñu wax sànq mooy firi aaya bi li yuhiqqa mooy ngir feeñal ngir nootal maanaam mooy euh, prendre le dessus dominer kon li yuhiqqa al haqqa diine ñu yéeg féeti kaw yéen lépp wa yubtila mu neenal mu doyadal al baatila kéefir maanaam loolu kon day tekki maanaa boobu euh, maanaa euh, alxaq waxoon nañ léegi ne day tekki alquran mais danay tekki tamit sunna euh, ndax borom subhanahu wa ta'ala comme fi mu naan inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi li tahkuma bayna an-nas bima araka allah wala takun lil kha'inina khasima sadaqa allahu al-azim inna ñun yàlla anzal naa ñoo wàcce ilayka ci yow yenent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam alkitaaba téere yàlla bi bil xaq mu ànd ak sunna al mu ànd ak sunna yu xeqal euh, euh, euh, naan lu tax bu ne su li tax su ko defee ngay àtte saa su ne naas ci diggante nit ñi bi maa araakallah ci li yàlla wax maanaam mooy sa sunna moo tax yenent bi sallallahu alayhi ne damay xaraamal comme ni yàllay xaraamal damay daganal comme ni yàlla lay daganal euh, te comme fi mu naan wa anzalna ilayka zikra litubayyina linnaasi maa nuzzila ilayhim bu ko defee mu ne damaa wàcce ci yow ak zikra mooy alquran ak sunna ak gis nga maanaam xam-xam yi nga xam waxoon nañ ci zikra ci maanaam bu mu mën a lamboo maanaam boo nga xam ne xam yeneen yi la alayhi salaam maanaam men ulumi nubuwwa euh, yooyu mu ne euh, ko defee nga lan bu ko defee Eh, nga leeralal nit ñi eh, ma alquran bi nga xamante ne wàcc nañ ko ci ñoom maanaam kon ñu gis ne ak xàq muy ak zikr bëri mooy xam-xam bu xóot yi nga xamante ne moom moo nekk ci alquran ak sunna eh, te yenent yi alayhi salaam jagoo ko li nga xamante ne kon kon xàq fi loolu lay tekki te loolu moom mooy sunna rek xàq day ñëw di tekki ak njub al manam djub wala djubal euh l'islam comme fi borom subhanahu wa taala euh di wax nan fa tawakkal ala allah innaka ala alhaqqil mubin fa tawakkal ala allah na nga wéeru ci yàlla innaka ndax kat yow ala alhaqqil mubin ya ngi ci njub gu bés bu gu bu leer nañ xaq comme comme feneen feneen innaka ala hudan mustaqim yaa ci njub gi nga xamantene dafa coow wor comme ay boobu amna fenen fo xamantene euh haq da fay tekki wahyu bi manam wahyu bi nga xamantene mom la sayyidina Jibril alayhi salam bi indi yenenti yi alayhi salaatu wassalam lolu la haq di tek comme fi borom subhanahu wa ta'ala di waxe nan wa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladhina yaqra'una al-kitaba min qablika laqad ja'aka al-haqq bu fekkente ne da ngay sikki sàkka ci li nga xamante ne moom la ñu wàcce ci yow yow sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sooy sikki sàkka euh, ci loolu maanaam sikki sàkka fii nag tegtalewul di dutee di di di jax-jaxal déedéet day mel ni comme li yonent bi sallallahu alayhi bi mu naan euh, euh, nahnu ahaqqu bi shakki min Ibrahim loolu lay tekki maanaam ñun ñoo gën a yey ci sikki sàkk maanaam que moom Ibrahima so sax moom Ibrahima sikki sàkkawul daf ne balaa walaakin bi qalbi bi ñu ko laajee ndax gëm xanaa awalam tu'min xanaa gëmoo mu ne ahankay waaye euh, ngir sama xol gën a dal maanaam mooy questionnement la ci mbir mi naka la demee questionnement maanaam lay tekki foofu mais tekkiwul sikki sàkk boo xam te ne mooy maa ngi xool est-ce que dëgg la wala lu dëgg déedéet mooy naka la xaqiqa mbir mi mel loolu la mu ne loolu nag mu ne da ngay laaj ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon jàng téere bi ci lu jiitu wala maanaa bi nekk sikki sàkka comme dut bi mën a amal maanaam bi mën a sikki sàkk bi mën a xew ci ci nit ñi bu boobaa dafa wax ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mais xeet bi yëpp la doon waxal ci ginnaaw mais du woon yeneen bi sallallahu moo nekkoon ki muy waxal dëgg-dëgg comme fi borom subhanahu wa ta'ala na ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtum nisa e eh, yow yenen bi sallallahu alayhi wasallam ba fa daal ci so len de fasé fase jigéen ñi soo leen dee fase jigéen ñi maanaam nga gis kon ye ye xet bi la doon waxal et cetera euh kon yenen bi sallallahu alayhi wasallam kon fi mu naan kon alquran ne lolu sikki sak gogou bu len naree dar rek laajal ñi nga xam ne daan jàng téere bi ci lu jiitu ñi nga xamne waccu won nañ ci ñoom téer bi laqad jaa'aka al-haqq wa nani wallahi deug deug waxyu bi moo la dikkal moy al-haqq moy waxyu bi moo la dikkal moy révélation euh al-haqq dina tekki al-adlu moy manu de moy lo xamantene moy ne justice comme fi borom subhanahu wa ta'ala yaa daawuda inna ja'alnaaka xalifatan fil ardi fahkum bayna an-naasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fahkum bayna naasi bil haqqi yow yent yàlla daawuda alayhi salaam ñun de dañ laa def nga nekk xalifa ci kaw kon nag sooy àtte na nga ci diggante nit ñi ci maanute bil haqqi ci maanute loolu lay tekki euh, baatu xaq tamit day ñëw euh, di tekki li dëppook li xew mooy as-sidqu dëgg parce que as-sidqu dafa am ñaari maanaa yu am dafa am maanaaw li dëppook li xew mooy nit ki li mu wax dëgg la comme fi yentu bi sallallahu alayhi wa sallam aleykum bis ak wa iyyaakum wal kadhib maa leen di dénk dëggu c'est-à-dire mooy di wax dëgg ak maa ngi leen di moytandikuloo kàcc mooy di wax kàcc di wax loo xam ne kon dëgg day ñëw ci maanaaw li nga xamante ne moom mooy li dëppoo li xew mais dëgg day ñëw ci maanaaw euh, li feeñ ak li nëbbu ci yow ñu yem maanaam li ngay feeñal ak li ci yow ñu daal di nekk li nga xam ne ñoom ñoo yem sa biir ak sa biti yow loolu day tekk dëgg euh, moo tax souvent bu ñuy wax euh, as-sidqu dëggu comme li yes ala yow ma yes ala yow ma yes ala saadiqiina an sidqihim bis bi ñuy laaj ñu dëggu seen dëggu sidqihim ak ulaa'ika humu saadiquuna ñoo ñoo ñu dëggu maanaam dëggu googu mooy lan mooy sincérité gi am maanaam mooy li ñuy feeñal ci biti ak li ñuy nëbbu ci biir benn la léegi euh, dëgg bu njëkk bi nag moom moo tax ñuy wax euh, xaq day tekki comme fi borom subhaanahu wa ta'aala maanaam ci alquran comme bi naan qawluhul haqqu wa lahul mulku yawma yunfakhu fi suur euh, qawluhul haqq yàlla waxam mooy dëgg dayal mi ngi naan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla gis nga xaq ndax xaq day tekki dëgg en tant que mooy li dëppoo li xew ci wax donc wa tammat mat na kalimatu rabbika si kàddu borom sidqan bu nekk dëgg ci wax waaye mu nekk tamit adlan maanute ci àtte dañuy gis kon xaq day mën a jëlaale ñaari maanaa yooyu mooy qawluhul xaq euh, euh, xaq day tekki bor bor comme fi boroom subhaanahu wa ta'aala fa in kaana alladhi alayhi al-haqqu faqiiran bu fekkente ne ki amee ki nga xamante ne moo moom la tegu ci kawam alxaq dëgg maanaam bor bi faqiran di ku ñàkk maanaam kon kooku na ngeen ko woye falal fa naziratun ila maysara maanaam na ngeen ko may ba mu yomb ci moom wala euh, walyumli lillazi alayhi alxaq wal yattaqi llaha rabba maanaam bor soo leen bind contrat wu bor ak reconnaissance de euh, ki koy bind mu ne fal yumlil na na na na nay dikti maanaam yum leen moom mooy nay sawaate di dicté allazi ki nga xam ne alayhi tegu na ci kawam alxaq bor bor bi ak day wala yattaqillaha rabba te ragal yàlla borom subhaanahu wa taala maanaam noonu la contrat bu mel noonu di demee maanaam mooy euh, ki nga xamante ne mooy bind moom mooy kan euh, kii ki nga xam ne mooy bind mooy borom euh, ki bor maanaam ki nga xam ne moom lañ ameel bor moom mooy bind ki nga xamante ne nag moom mooy sawaate mooy dictée mooy ki nga xamante ne moom moo moom mooy moom mooy moom lañ yoral borom maanaam bu ko defee équité maanaam maandu te mën a am ci mbir mi euh, euh, xaq day tekki euh, achay achay u sif sarf wala boog euh, ash-shay'u sarf ala kamalihi mbir mi nga xamante ne moom kese la dafa intrinsèque mooy loo xamante ne raxul dara dafa pur mais ci nu anam gi mu gën a mate foofu nag ngay gis comme baatu euh, haqqa tuqaatihi voilà yaa ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqaatihi et yéen ñoo xam ne gëm ragal yàlla dëgg dëgg ragal yàlla mooy mooy dëgg ragal yàlla bu mat te ragal yàlla bu raxul dara na alladhina aataynahumul kitaaba yatluunahu haqqa tilaawatihi ulaa'ika yu'minuuna bi ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere bi eh, te ñu di ko jàng saa su nekk dëgg dëgg nañ ko war a jàngee maanaam mooy dinañ ko jàng seen làmmiñ dinañ ko jàng ak seen xol dinañ ko jàng ak seen seen jëmm dinañ ko jàng seen bakkan dinañ ko jàng ak seen ruux dinañ ko jàng seen mboot secret dinañ ko jàng ak seen xel dañ ko jàngal seen secret secret seen mbóotu mbóot yooyu yëpp ay xeeti martaba la ci njàngit mu alquran yoo xamante ne ñi nga xam ne ñoo incarné dëgg-dëgg ni ñuy jàngee maanaam jànginu alquran yooyu ñoom mën ne ñooñu nag ñooy ñi ko gëm dëgg dëgg dëgg dëgg ah wa ma qadarullaha haqqa qadri dëgg dëgg joxuñu yàlla nattuñu ko dëgg dëgg niñ ko war a natte mooy jox ko gëdd gi nga xam ne mooy gi war dëgg gi yelloo fa moom loolu moom nit ci def ak euh, la tarawunnaha ah, euh, euh, haqqul yaqin ba haqqul ñëw na ci alquran wa innahu la haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim waaye ñëw na ñaari yoon mais dëgg-dëgg lii nii mooy lu wóor la lu wér maanaam feeñ waayu borom bi la subhaanahu wa ta'aala ci anam ju gën a mate mooy alquran lii parce que al yaqin ci boppam mooy yàlla ci boppam yàlla ci boppam mooy al yaqin voilà comme na waabul rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqin na nga jaamu sa borom comme dëgg-dëgg li xam te ne ñoom nga ko eh, ba keroog yàlla ci boppam eh, di la dikki mooy nga nekk koo xam te ne sa léegi day mujj nekk yàlla ngay fi maanaam eh, ngay waxee yàlla di defee yàlla di xoole yàlla comme li yàlla wax rek borom subhaanahu wa ta'aala doon tànk bi muy doxe euh, loxo bi muy laale euh, euh, gis-gisam maay doon dégg-déggam et cetera maanaam yooyu ba ba mat noonu te loolu ku ko xas bu mat jeex na mooy ne yow yegg nga ko xam ne dootoo yàqooti mënatoo yàqu parce que bu sa lépp nekkee yàlla yàlla du yàqu maanaam kon dootoo yàqu yow léegi. xaq nag day tekki tamit aajo maanaam mooy soxla kom euh, fi borom subhaanahu wa ta'aala naan euh, waa yent yàlla luuti maanaam peuple yent yàlla luuti alayhi salaatu wassalaam euh, ñoom dañ ko laqad alimta maa lanaa fii banaatika min waaye yaa gën xam ne xam nga daf ni leen ah waaye sama doom yaa ngi nii de sama doom yu jigéen yaa ngi nii waaw soo leen demee sax bay def dara maanaam sama doomu jigéen yaa ngi nii yéen mën ngeen mën naa leen leen may ngeen séq ak ñoom maanaam ngir ne maanaam may leen leen comme soxna segam yéen euh, da ngeen a bëgg rek koo leen joteel euh, ngir ne ci buntu sëy maanaam da ngeen a bëgg rek koo leen joteel ci buntu sëy am naa ay doomu jigéen wala boog xeet wi yëpp samay doomu jigéen lañ na ngeen jote maanaam nañ leen leen may waaw haa'ulaa'i banaatii in kuntum faa'ileen mu ne ko xam nga lan la qaalu ñu ne laqad alimta yaa gën a xam ne maa lanaa fii banaatika ñeeluñu moos ci sa doom yi maanaam si jigéen ñi ngay wax min haqqin ci aajo ñun soxla wu ñu jigéen ñi innaka la ta'lamu maa nuriid xam nga li bëgg xam nga li nam mooy euh, dañoo bëgg maanaam gan yi mu amoon ndekete booba ay malaaka lañ gars yi nag xamuñu ko woon gan yooyu ñu amoon mu amoon alayhi salaatu wassalaam moom lañ bëggoon a joteel parce que gars yi dañoo yegg ci niveau maanaam saay-saay ak góor jigéene ci anam goo xamante ne dañoo mujj nekk ay agresseur maanaam dañuy def te te gis nga yëf góor jigéen yi boo moytu fa la jëm ginnaaw bi ñu toogee naan ay léegi dagan na kii na nangam nangam gars yi dañuy jëlaat yeneen paa nag dañuy dem ba mujj di agressé gars parce que pulsion la maam ay maanaam topp sa bakkan la ñuy nekkee ci anam goo xamante ne a muñati maanaam dootul mën a bàyyeeti loolu te ci ay caaxaan rek lay lay tegu ngir topp sa bànneexu bakkan ak say caprice surtout say caprice mu ne kon yow xam kon baatu baatu xaq foofu la kat eh, alimta maa lanaa fii banaatika min xaqin kon xaq foofu day tekki la day tekki aajo maanaam xam nga ni am ñu aajo ci sax ci sa ci sa doomi jigéen eh, xaq day tekki tawhid mooy wéetal gi ñuy wéetal borom subhanahu wa ta'ala maanaam seede gi ñuy seede ci suñu xol ne yàlla rek kenn la comme fi borom subhanahu wa ta'ala naan lahu da'watul haqq moom buur yàlla moo am woote gi nga xamante ne moom moom moom la ñeel woote gi nga xam ne moom la ñu woote ci tawhid jëm ci wéetal borom subhanahu wa ta'ala uh, ak faalimu anna al-haqqa lillah xam xamoon nañ ne ndekete yoo wéetal rek kese kese kese. seede ak kennal ak wéetal ci sa xol ndekete yàlla rek a ko mën alxaq day tekki dëgg gi nga xamante ne moo safaanoo ak baatil ak ak caaxaan baatil caaxaan maanaam alquran day ñëw muy tekki loolu comme fi borom bi subhaanahu wa taala di waxee ne dhalika bi anna allaha huwa alxaq wa anna ma tad'una min dunihi al baatil yéen mu ne boo xoolee mbir mi demee daf fekk ne yàlla ci boppam moom mooy dëgg maanaam yàlla jaamu yàlla mooy dëgg voilà euh, mooy euh, summa ruddu ilallah euh, dëgg boobu loolu dëgg bi maanaam fii fii alxaq mooy li sax fii baat bi gis nga fii mooy as-sabit as-saabitul a ghayrul mutaghayyir li nga xam ne dafa sax taxaw ba pare du soppeeku immuable loolu mooy mooy mooy xàq boobu mooy yàlla mooy dëgg euh, mooy bi mu naan yàlla moom mooy dëgg daal kenn laa wax xàq wa anna maa tad'uuna min duunihi al-baatil te leneen li ngeen di jaamu lu dul yàlla yépp lan la neen la maanaam mooy li amul jooyam képp te d'ailleurs loolu xam nga euh, loola tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne. asdaqu kalimatin qaalaha ash-shaa'iru fi al-jaahiliyyati qawlu Labiid alaa kullu shay'in maa xalaa Allaahu wax ji nga xam ne mooy wax ji gën a dëggu yi nga xamante ne waykat poète wax na ko ci jamono yi réer bi mooy lii lii nga xamante ne moom la Labiid waxoon euh, radiyallahu anhu gannaaw yi daf ko dugg ci lislaam mu ne euh, alaa waawee kullu shay'in bépp mbir maa xalaa Allaahu boo ci dindee yàlla rek lépp baatilu neen la amul existé wul réel en réel voilà loolu neen la euh, mais dëgg bi tekki nag bi nga xam ne moo safaanoo ak caaxaan moom mooy summa ruddu ila allahi mawlaahumul haqq maanaam fii ci àdduna dañ see nekkoon lu leen neex def ku leen neex topp waaye summa topp nag ruddu ñu delloo leen ila allahi te buur yàlla bi nga xam ne mooy ñu génn àdduna ñu delloo leen nag ci yàlla bi nga xam ne mooy mawlaahum mooy seen kilifa dëgg-dëgg ci méngoo seeni mbir dëgg-dëgg al haqq bi nga xam ne moom nag mooy bu dëgg ca dëgg ki nga xamante ne moom moom moo yelloo woon ñu jaamu ko parce que jaamu bi ñu koy jaamu moom mooy loolu dëgg leneen li ci des ay caaxaan la woon kon xaq foofu loolu lay euh, tekki euh, dana tekki euh, hmm. mooy li gën a li naan wallahu axaqu an taxshuhu an taxshaw yàlla moo gën a yey ci ngeen ragal ko ak nahnu ahaqqu bil mulki minhu ñun de euh, boobu euh, Taalut la woon alayhi salaam moom lañ doon jox nguur gi euh, mais ñoom dañoo jàpp kom comme dafa néew doole am amul alal noonu dafa maanaam dafa amul alal dafa amul woon alal ñu ne nahnu ahaqqu bil mulki ñun ñoo gën a nguur gi ci moom voilà maanaam ñoom. noonu moo nekkoon seen gis-gis topp euh, am na benn xaq boo xamante ne euh, da ñëw na ci alquran léeg-léeg mais foofu loolu la ñu tuddee alxaqul maxluq dëgg gi nga xamante ne dañ koo bind maanaam mooy incarnation borom subhanahu wa ta'ala ci anam bi mu gën a mate mais nag par contre dañ ko bind et moom daf fee nekk naka jekk ak amam tamit amul maanaam da moom moo jiitu am-am yépp et ci moom à partir de am-am googu ci la borom subhaanahu wa ta'aala bindee lépp su woon moom yàlla du bind dara te loolu mooy loolu la wax al-haqiqatu muhammadiyya nekk nekku yonent bi sallallahu alayhi wasallam dëgg-dëgg loolu lañuy ñuy wax nuurullah mooy leeru yàlla loolu la wax. Euh, sirullah muy mbóotu yàlla moom daf fee nekk naka jekk borom subhaanahu wa ta'aala moo ko amal mais lépp lu amal ci moom la ko amale comme fi mu naan wa maa xalaqna as-samaawaati wal arda wa maa baynahumaa illaa bil haqq binduñu asamaan yi ak suuf si ak li ci diggante bi lu dul ne fañ ko jaarale ngir bind ko mooy ci alxaq boobu muy yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ruux ak ruuxul muhammad yi ci lañ amale lépp loolu lañ alxaqul maxluq euh, alxaqul maxluq bi nag xaqiqatan euh, ci maanaa bi maanaam euh, la bu làqatu maanaam bokk na ci maanaa yu gën ci maanaa yi alquran yi mais xaq foofu loolu lay tekk mooy ne ci moom lañ bind lépp voilà kon e, kon e, yëpp ay maana la yoo xamante ne yu xaq am léegi ñun suñu aaya bi ñu nekk maanaa yi ñu jot a tudd yëpp wala jege na ci ñaar fukki maanaa wala ëpp na ko maanaa fi jot wax yëpp gisuñu maanaam suñu aaya bi kon baan maanaa la ci yokk boobaa dañ naan la naam boobu dafa yor beneen ndax al xaq dafay tekki ci alquran al eh, hazzu wan nasib maanaam mooy cër wàll mooy part allocation quota mooy fii wëllëg yi ne gaa nga xam ne fii am waali bu nekk na ci seen alal bi xàqul wàll cër muy àq droit d'ailleurs baat boo dama ko fàtte wax xàq bi nga xam ne day tekki droit wa aati kulla bi joxal boroom àq bu nekk àqam mooy àq gi naa kii di nga waaye li sama àq la kii daa jël amel nga ma àq gis nga xaq arab day tekki loolu mooy al xuquq mooy pluriel bi mooy droit Eh, fii nag xàq am na sax beneen subhaanallah am na beneen sax boo xamante ne eh, ba tey baat baat boobu daf koy tekki comme quoi gis nga alquran ni mu garaawee dafa yéeme alquran ah, ah ah xàq day tekki ci alquran sax albayaan leeral xoolal yent yàlla Musaa alayhi salaam bi mu waxee mu reet di nag bi ba gars di ko nag ba nan la war mel muy melal di melal di melal ba ne dañ ne ko al aana jikta bil haqq fa zabahuha wa ma kaanu al aana léegi nag jikta bil haqq indi nga ci leeral bu mat maanaam mooy léegi nag leeral nga naññ mbir mi euh, léegi nag alors que fii xàq ci suñu aaya bi cër lay tekki wàll bi nga xam ne dañ ko ko dañ ko waroon a jox jiw wàll gi nga xam ne kii moo ko moom mooy xàq kon euh, borom subhaanahu wa ta'aala di yëgle ni ñi nga xamante ne ñoo ñi sóobu ci borom subhaanahu wa ta'aala te yegg ci borom subhaanahu wa ta'aala jege borom subhaanahu ci borom subhaanahu wa ñoom seen alal gën yor dafa am ay àq maanaam mooy dafa am ay. ay cër yuñ ci war a génne yoo xamante ne cër boobu euh, dafa am ñu ko moom moom dina ko wax ci aaya ba la di ñëw euh, cër bi nga xamante ne tamit moom la wax foofu borom subhanahu mi ngi leeral ne xàq la boo xamante ne maanaam cër la boo xamante ne léeg-léeg mu nekk farata léeg-léeg du nekk farata comme borom ko xamee rahmatullah ni ñu ci wuutee ndax euh, xaq boobu azaka la wala yeneeni soxla la comme li Seydina Abdullah ibn Abbas wax radiyallahu anhu ne du azaka lay wax fii mais yeneeni cër la yeneeni euh, wàll la yoo xamante ne dañ ko war a jox ñi nga xam ne ñoo ko yelloo et nit ki ndimbali gi muy dimbali ay njabootam maanaam bi muy jël di ko jox di ci dundal njabootam loolu àq la li war a jël di ci dundal wala boog di ci dimbali ay waajuram rawatina bu dee dañoo ñàkk dañoo néew doole loolu tamit àq la maanaam mooy ab cër ci seen alal bu war di génne li nga xamante ne eh, dañ ciy dimbali koo xam ne dafa ñàkk. kooku tam beneen cër la li nga xam ne dañ ko war a jël di ci dimbali ñi nga xamante ne euh, dañoo néew doole et que ñu nekk ci soxla ju jàmp loolu tamit mu nekk beneen cër bu ñu war a génne ci alal yi di ko dox ak tout simplement li nga xamante ne ak baax rek lañ ci yóbbu muy sarax yi nga xamante ne moom la ñuy saraxe et cetera euh, loolu ku mel na Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu moom xaq bi noonu la ko fi dee mu am benen wax bo xamne lu upp ci borom xam-xam yi en tout cas firikatu alquran alcorane ñom fofu lañ koy firé moy azaka parce que ñom dañu ne euh azaka rek moy li nga xamantene ne xaqul maalum la waxon nañ ne baatu xaq day tekki azaka loolu sax ci jotay bi wess waxon nañ ko comme fi borom subhanahu wa taala doon wax naan wa aatu haqqahu yawma hasaadihi wala tusrifu ah voilà kulu min samarihi idha asmara wa aatu haqqahu haqqahu yawma hasadihi tusrifu eh, meññ bi lekk leen ci saa yu meññee te na ngeen jox àqam maanaam mooy azaka na ngeen génnee azaka ji ci alal ci haqqahu yawma hasadihi bisu góob wala tusrifu te lekk te bu yàq voilà bu leen ñàkk kon danga gis foofu kon baatu xàq day tekki lan day tekki azak euh, bu ñu xoolee maanaam yépp nag nga xam ne moom la fi jot ba léegi bu ñu xoolee dëgg-dëgg euh, ëpp na ñaar fukki wala bu ko bu ko ëppul jege na ko lool am ñaar fukki maanaam ci Euh, xàq ñëw na comme ci alquran tamit ci forme verbale comme ni ko waxee ñaar fukki yoon ak ñaar voilà alors que globalité bi yëpp bu ñu ko xoolee deux cent quatre-vingt-trois la wala deux cent quatre-vingt-quatre selon tekkatal bi nga xam ne moom la ñu waxoon ci euh, njëlbéenu euh, wax ni ci njëlbéenu jotaay bi suñu xoolee nag li nga xam ne moom la kon fii àq gi wax nañ la waxu Seydina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhuma ah. waaye li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah dañ ne dafa nekk loo xam ne maanaam azaka la parce que azaka rek mooy àq bi nga xamante ne lu lu leer nañ la mooy xaqul maalum parce que xaq la borom subhaanahu wa wax ba daal ci teg ne maalum lu ñu xam la euh, loolu moom moo tax ñoom ñu ne kon azaka la moo tax ëpp ci borom xam-xam ne azaka Euh, donte waxu Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mënuñu koo sànni noonu ngir ñaari bi bu njëkk bi moom mooy moom maa xabarul umma wa turjumaanul Qur'an mooy fóori xeet te moom mooy firikatu Alqur'an bu mag moom mooy lantinoor Alqur'an mooy tarjumaanul Qur'an radiyallahu anhu parce que Yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko ñaanal loolu benn mais ñaareelu mbir mi mooy ne bu ñu xoolee settantal wax ji ci boppam dinañ gis ne. ni mu ko waxee noonu yenu na maanaam mu nekk tamit ay ay quota yu ñu xam muy ay ay ay cër yu ñu xam parce que su fekkente ne li nga war a dundalee sa njaboot ne da nga kaa war a dundal ci sa alal loolu mën nga koo nag mu nekk cër bu ñu xam bu fekkente ne euh, euh, nit ku nekk ci jàmp la ci ku nekk ci ci aajo bu jàmp la li nga war a li muy soxla pour ñu war ko mën a génne ci sa alal nga mën ko génne ci sa alal ngir jox ko ko loolu mën na nekk cër lu nu xam bu fekkente ne maanaam yi mu fi wax yëpp rek mën na bu xattaaba nit ki bu ne bu ne d'ailleurs am na xadis boo xam ne dafa bokk ci li ñu tudd muxtalaful xadis mooy xadis yoo xam ne dañuy nuru lu contradictoire mooy mooy mooy ñaari xadis la yoo xam ne dañoo dañoo nuróog lu contradictoire carrément mooy laysa fil maali haqqun siwa zakati ak inna lil maali haqqun siwa zakati xadis bu njëkk bi dani alal amul benn àq benn euh, cër boo xam te ne force dañ ko cee war a génne lu dul azak beneen xadis bi daal ni ah alal de am na yeneeni cër yeneeni àq yu ñu ci war yu ci yu ci aju yu ci aju bu bokkut ak asaka dañoo contradictoire fekk li koy firi dëgg-dëgg mooy wax Sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhu ci aaya bi mooy ne dafa am ay àq yoo xamante ne dañ koo teg ci njàlbéen te loolu asse kese la moom lañ teg ci njàlbéen mais mu am ay àq yoo xamante ne day daal di war ci keneen comme d'ailleurs moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax ci xadis bu nekk mu ngi ci sunan yi sunan imam Nasaa'i et cetera rahmatullah mu naan kafaa bil mar'i isman an yudayyi'a man ya'udu ci beneen riwaaya kafaa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqulu doy na nit bàkkaar bu ko doy sikk sikk problème yow bu ñëwee yowmal xiyaamati mooy mu neenal ak maanaam mu doyadal ñi nga xamante ne ñooñu la njaboote wala boog mu doyadal ñi nga xam ne ñooñu la war a dundal mu njabootam kon da gis ne ñooñu euh, àq gu ñu war a xam la mooy mooy mooy mooy nekk samba àllar rek euh, ñaare ñaare jikko jooju moom ak samba àllar ñooy yem wala boog nit nay lool bu jéggi dayoo ci xeetu nay mooy ci anam goo xamante ne euh, li mu yor du ko mën a du du du du du ci dundal njabootam voilà li ko war ci njabootam du ko def abadan lu tax parce que tout simplement dafa nay wala boog. parce que ca biti lay def alal ji loolu nag ku mel noonu yonent bi sallallahu alayhi ne doy na nit ci bàkkaar bu mag a mag bu ko doy sëkk sëkk sëkk bu ñëwee amal xiyaamati mooy mu neenal ah, àqu boobu kon loolu day eh, ak yeneen yu mel noonu yooyu dañuy dëgëral li nga xam ne moom la Seydina Abdullah ibn kon lan ay àq la mooy ne ñi sóobu ci yoonu yàlla dëgg ñu jege yàlla dëgg ñi nga xam ne dañu torox la ci kanamu yàlla borom subhanahu wa ta'ala dëgg dañuy am tamit yërmande bu ñu amee ci mboolem mbindeef yi waaye dañuy am tamit euh, dañuy xam lenn lu ci nekk nañ fa war a taxawee ak lan lañ fa war a def ba tax alal yi ñu am ñi nga xamante ne ñoom dañ ko war a jox ñu xam tamit kenn ku ci nekk li nga xamante ne euh, moom lañ la war a jox ci ci ci wàllu alal euh, léegi mais alal googu day nekk loo xamante ne maalum la mooy lu ñu xam la maalum maf'ul la ci bu duggee ci alma ya'lamu euh, ilman xam na maanaam lu nu xam xam na dana xam te xam-xam mooy al ilmu mooy loo xamante ne dafa dëppoo ak li nga xamante ne moom mooy li xew mooy idraku shay'i idrakan tamman jaziman hmm, ala haqiqatihi wala boog euh, euh, voilà ala mooy nga xam mbir xam boo xamante ne maanaam mooy nga jote ci information mooy idraku shay mais mais tàmman ci nu mat ba pare mu nekk jaz jaziman maanaam nga dogu ci mais nga dogu ci mais mu dëppoo li nga xamante ne moom la mbir mi nekkee voilà voilà mooy mbir mi li nga li nga jàpp information bi ni mu amee accès ni nga ci accéder loolu déjà ci mbir moomu information mbir mi nga am si accès nga jote ko mais mu nekk loo xamante ne da nga koy jote jote mu mat maanaam du partiel pour mu yàqu pour pour pour mu biaisé information biaisé mais day nekk loo xam ne tamit da nga ciy dogu parce que su fekkente ne jotoo information bi loolu jaxlu la tudd jaxlul basit mooy ñàkk xam lu ñu réer mooy ignorance simple bu fekkente ne dafa partiel day nekk ba tey jaxlu bu fekkente ne euh, dañ cee jote information bi ci mbir mi mbir mi dañ cee jote mais doguwoo ci loolu day dugg ci soit zann mooy njort wala bokk ak shakk muy wala bokk ak wax muy def benn ci yii la a dugg mais du mënta dugg ci xam-xam bu fekkente ne euh, da nga ko information bi dafa da nga ñëw nga téye nga jàpp ko nga dogu ci mais sauf que la ca mbir mi du na mu nekkee dëgg-dëgg ala ma huwa alayhi ala ma huwa alayhi maanaam ala haqiqatihi ala ma huwa alayhi wala boog bi haqiqatihi euh, mooy na mu nekkee dëgg dëgg dëgg su fekkente ne nekkul noonu loolu jahlul mu lañ koy tudde mooy nga jàppe mbir ba pare dogu ci nga mën cee waat jël sa loxo dugal ko ci taal bi waat ne lii may wax dëgg la wala nii ma ko jàppee dëgg la ba noppi mu nekk loo xamante ne euh, ndekete yoo mbir mi demewut noonu du tout loolu la tuddee ba jaxlun murakkab jaxlun murakkab mooy réer boo xamante ne dafa tegaloo mooy l'ignorance endurcie loolu nag euh, li koy indi mooy am fausse information wala boog sax ay suuf ba da baax ba pare nga wóolu leen ñaare mooy indi mooy indi jaxlun murakkab euh, incha allah taala ci jotaay bii di ñëw euh, dinañu wax baat boobu maanaam fi mu ñëw ci alquran parce que ñëw na ci alquran euh, baat bi ci ci jëmmi boppam maanaam maalum noonu rek ñëw na ci alquran fukki yoon ak benn ci fukki place ak benn ñëw na ci alquran ci maanaam pluriel bi mooy maalumaat comme ashhurun al hajju ashhurun maalumaat ak was waskurusmallahi fi ayyamin maalumaat euh, muy ci ñaari parties yooyu rek la ñëw ci am